أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الضاعون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم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 mawlana abul abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafaihi al-muhtadin wa ahli tariqatihi al-faizina ar-rabihina amma ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi ngi woon ba tey ci kitaabul umra wal jaami as-sahih wa amirul mu'minin abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari alayhi rahmatullahi wa barakatuh suñ jotaay bi weesu gisoon nañ ci xadis ndax gisoon nañ ci baabu man i'tamara qabla al-hajj buntu ki nga xamante ne dafa umra laata muy xaj ñu la bu gisoon ci bi ñu laajee sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ñu laaj ko anil umrati qabla al-hajj ci mbiru umra e, laata ak jot laata ñu ak moom mu ne la ba'sa tekki ne i'tamara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam qabla an yahujja loolu daal dara ayu ci bu fekk ne yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ajin umra uh, na laata muy aj ñu gisoon baabu kama tabara nabiyu sallallahu alayhi wa sallam buntu bi wax ñaata la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam umra uh, uh, ñu gisoon ci xadis sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu anhuma mu ne arba'un ñeent la maanaam naka noonu euh, gisoon nañu soxna Aisha radiyallahu anha bi sayyid bi bi mu gisoon Abdullah Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ne ihdahunna fi rajab arba'un ihdahunna fi rajab ñeent la waaye benn bi ci rajab la ñu gisoon ci fi mu ne ma'tabara ma'tamara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi rajab ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam musuta umra ci rajab loolu maanaam mooy ne kon seydna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma dafa def def la nuyu seen xadis sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu mu wax ñeent yooyu mu ne umratul Hudaybiyyah fii Dul Qaada kon uh, umratul Hudaybiyyah ak umratun min al-aamil muqbil ak umra bi nga xamante ne uh, mooy ci at bi ci tegu wa uh, umra bi nga xam ne moom la bi nga xamante ne ci la aje waaye ñu ne ko kam xaj de ñaata la at mu ne waaxira benn yoon xadis boobu gisoon nañ ko gis ci ay version yu wuute ñu gisoon tamit xadis sayyidina al-Barra ibn Aazib radiyallahu anhu ne i'tamara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi dhil qa'dati qabla an yahujja marratayn ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am umra fi dhil qa'da laataa muy at ñaari yoon gisoon nañ tamit baabu umratin fi ramadan buntu bi wax umrati ramadan a njariñ maanaam mooy ngëneel xam ne moom moo ci nekk te yenent bi sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu nga xam ne euh, yenent bi sallallahu alayhi wa ci wax ne fa inna umratan fi ramadana hajja na umra ci weeru koor euh, aj la ñu gisoon ci maanaam dangay am yool aj ñu gisoon ci baabul umrat laylatal xasabati wa xayriha buntu bi nga xamante ne wax ci umra guddi gi nga xamante ne moom mooy laylatul xasaba maanaam guddi gi ñuy dem ci mu xasab ca albatxa ak leneen lu dul guddi googu gisoon nañu ko gisoon ci masala yi ci wërwërloo maanaam wuute gi ci xaraf yi am ab jumhur rahimallahu aljamia mu ne moom mu nekkoon falamma kaana laylatul xasabati arsala ma'a abdurrahman ila tan'im fa ahlaltu bi umratin makaana umrati muy xadis sayyidina Aisha radiyallahu anha ni nga xam ne loolu la wax mu ne bi nga ne guddi googu nga xam ne laylatul xasaba dafa yabal ma yabal man ak sayyidina Abdurrahman radiyallahu anhuma maanaam mu ca Tan'im eh, na ma daal armal ci eh, umra mu daal di taxaw taxawaaye sama umra ka ma waroon a gisoon nañ tamit baabu umratu tan baabu umratu tan'im buntu bi nga xam ne mooy umra ci maanaam boo xamante ne tan'im lay jóge ñu gisoon xadis sayyidina abdurrahman ibn abubakr radiyallahu anhuma mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam amarahu an yurdifa aishata wa yu'miraha min at-tan'im ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko yabal moom ngir mu ànd ak soxna aisha radiyallahu anha bu ko defee mu daal di koy umraal maanaam mu jàppale ko mu mën a def umra ci tan ak tanim gisoon nañ ci tamit xadis sayyidina Jaabir ibn Abdullah bi al ansaari radiyallahu taala anhuma moom tamit mu daal di wax ne fa amara Abdurrahman ibn Abi Bakr an yaxruja maaha ila tanim fa atamarat ba'da al hajj fi dhil hijja fi dhil hijja Euh, ne euh, yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa digal sayyidna abdurrahman ibn abubakar radiyallahu anhuma ci mu génn dem ba at-Tan'im mu daal euh, omra moom soxna Aisha radiyallahu anha ginnaaw ginnaaw ajji ci weeru dul hajja ñu gis léegi na ñu war a gis baabul i'timaari ba'dal hajji bi ghayri hadyin baabu buntal i'timaari omra ba'dal hajji ginnaaw ajji bi ghayri hadyin ci lu amul hadiyu maanaam fi imam al-Bukhari eh, rahimahullahu ta'ala eh, day leeral ne mënef naa umra ginnaaw bi nga xamante ne moom lañu aj maanaam ci eh, weeru aj mënef naa umra waat te umra googu du am hadiyu maanaam mooy umra yi nga xamante ne mënef na ko def su fekkente ne da ngaa bëgg a def sax nga bëgg umra ba pare bëgg a aj ba pare doo génn fi nga xamante ne moom mooy xaram bi loolu moom mooy tamattu bu fekkente ne da omra nga daal di boole ko aj comme ne ba tey nga xam ne doo simmeeku ginnaaw omra bi loolu moom mooy xiraan amma boo fekkente ne nag da ngay omra maanaam ginnaaw bi nga xamante ne moom nga aj ba noppi ba def say ko xaj bi bu la neexee léegi ngay génn di demaat di dellu siwaat maanaam di génn xaram bi di dellu siwaat di omra maanaam loolu amul lim amul lim boo xamante ne bu bu am la lu dul ne fuqaha maliki rahmatullah alayhim dañoo sip muy baamu maanaam nga nga nga umra maanaam nga di ko baamu ci at bi loolu fuqaha maliki rahmatullah dañ koo sib masalan tey waaye ñoom euh, fi ko fi ñu ko dàqee moom mooy euh, bu muharram du gisee maanaam ba balaa muy dellu si waat ñoom loolu rek la ñuy wax maanaam tey bu fekkente ne muharram dugg si na euh, balaa muharram beneen bi yegg si waat boobu bu fekkente ne umra nga ci maanaam dañuy sib nga baamu waat ko di umra waat waaye li nga xamante ne moom mooy li sax mooy ne umra amul lim bu ñu bu ñu euh, bu ñu ko sib moo tax sayyidna Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma maanaam dafa umra euh, junni yoon maanaam la umra ci dundam maanaam te loolu sikk nekkul ci ne boo xoolee ci at yu mu dund maanaam sikk nekkul ci ne daf ko def lu bare bari ci at bi loolu moom moo tax te loolu tamit nga gis ne ku mel ne Sufyan ibn Uyayna tamit rahimahullahu taala moom tamit daanaka lim jege na ko juróom-ñaar junni euh, la umra am 700 maanaam ak ñeneen ak ñeneen yooyu yëpp day tegtale maanaam ne euh, euh, baamu umra nekkul loo xamante ne lu ñu sit la comme ni nga xamante ne lu ëpp xam ne rahmatullah alayhim noonu lañ gisee amma fuqaha u maliki yi nag rahmatullah alayhim euh, dañuy dañuy sib koo xamante ne day day day lu lu bëri lu bëri bëri donte am na ci ñoom nag ñoo xamante ne bañuñu ko waaye loolu moom mooy li gën a ci mazhab bi comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee ومن قال بالإسناد المتصل في الكتاب لي حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى الزمي من قال حدثنا يحيى مي بن سعيد القطان من قال حدثنا هشام بن عروة بن الزبير بن العوام من قال أخبرني أبي سعبة أخبرنا مي عروة بن الزبير بن العوام من قال أخبرني عائشة بن رضي الله عنها أنها قالت نحن خرجنا جنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وافينا نياج متل الهلال نيل ويرو ذو الحجة ذو الحجة ذو الحجة معنا موي بني يكسي مكة فكنا نيجي دوغس فقال قال موه رسول الله صلى الله عليه وسلم نمان كيف كو خامتنا احبا صبنا ان يهلل تمو آه، ارمال بعمره تي عمره فل يهلل نكو ارمال ومن احب كيف كو خامنا صبنا ان يهلل تمو ارمال بحجه تي اك فل يهلل نكو ارمال walaw laa budul woon an nee naka man nekk ah daytu damaa indi sama hadiyu lu ahlaltu giñ naa ni kon danaa armal bi umratin ci umra maanaam kon man tamattu laa fa minhum mu man ñi nga xam ñoo xamante ne ahalla dañoo armal bi umratin ci umra ko ñoo la da ahalla dañoo armal bi hajjatin ci kuntu man nag mim man ma bokk ñi nga xamante ne ahalla dañoo armal bi umratin ci umra waaye nag fa xettu ma daal di gis samay mbërëg qabla lu jiitu an adkhala ci may dugg makkata makka hmm. fa adraka nii mu di may dab yawm mu arafa maanaam bisub arafa wa ana fek man xaaidun mangi ngi gis samay mbeureuk fa shakawtu ma di ila rasulullah dawal yalla ni sallallahu alaihi wasallam fa qala munama da'i na nga bayu sa umra wa qudi te nga firi ra saki sa bopp wam tashiti te nga wa ahli te nga armal bil hajji ci fa faaltu nee na ma daal di def loolu maanaam kon mooy amul woon temps wu def leneen moom mu daal di ma mujj def loolu maanaam lii tamit maanaam mooy al muhsir bi maanaam bu fekkee al ihsaan dafa muhsir bi moom amul dara lu ko ci fekk comme ni nga xam ne dinañ ko gis insha allahu taala ci téere bii di ñëw mooy kitaabul muhsir wa jazaa'i saydi insha allahu taala ci bu ñu paree fii nii ci kitaabul umra mu ne fa faaltu ma daal di def li ma yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax nee na fa lamma ba xamante ne kaanat ci la nekkee laylatul xasaba mooy laylatul xasaba mooy bi nga xamante ne kon ci la ñu jóge ci almuhassab euh, arsala mu daal di yabal ma ay ànd ak man abdurrahman abdurrahman te mooy ibn abubakar anhuma ila taneem ca taneem fa ardafaha nee na mu daal di koy euh, wéttali maanaam mu ànd ak moom fa hallat mu daal di euh, moom so Aisha radiyallahu anha daal di armal bi umratin ci makana umratiha mu taxaw taxawaayu umra bu ñëk gi nga xamantene mom la fas yono na def manam kon li moy ne umra bi du umra bu ñu fay waye umra bu bes na ndax lan ndax euh xët yi maanaam al Bukhari rahimahullah indi ko manam motax mu indi buntu bi fi ni mu ne mu fay allah manam allahu bur yalla man faqadaa mu eh, matal bok allahu bur yalla hajjaha ajam wa umrataha ak umram walam yakun te nekkuloon fii shay in ci dara min zalika ci lii yëpp hadiyun hadiyun maanaam kon su fekkoonte ne omra bi omra bu mu omra tamattu bi la day yóbbaale hadiyu day am hadiyu waaye comme que bi du omra fay moo tax amul hadiyu loolu mu ne wala sadaqatun te sarax amu ci wala sawmun koor amu ci maanaam mooy amul lenn loo xamante ne dañ naan saay eh, fidiya daf ci am maanaam mooy ak ndàmpaay da ci am wala da ngaa war a dabaatal ngir ne da ngaa manqué kon na nga joxe xaddu wala boog na nga eh, saraxe wala boog na nga woor yooyu yëpp amu ci kon lool moo lay wan ne loolu dalil akbar dalilun bi wane ne maanaam bi du umra tamattu bu bees rek def maanaam loolu bi moom mooy akbaru dalilun bi wane ne mbir mi noonu la def voilà comme ni nga xamante ne moom la eh, Shafi'i xanaa bi lay waxoon rahmatullah alayhim eh, te umra bii nii Euh, imam al Bukhari euh, rahimahullahu taala kon fii day leeral ne euh, at bi maanaam ginnaaw kon aj bi am maanaam boo defee umra ci biir at bi maanaam amul hadiyu te lii moom ifraad la def kon moom dañu gis ne soxna Aisha radiyallahu anha mujj gi ifraad la def te ifraad googu mu def ginnaaw gi la def umra moo tax Shafi'i rahmatullahi alayhi ñoom ñu ak Maliki yi rahmatullah ginnaaw bañ jàppee ne ifrad moo baax charte biñ ko tegal mooy nga umra waat ci at bi maanaam comme ni soxna Aisha def radiyallahu anha bu ko defee da lépp di nga def at boo xamante ne da koy matal at moom kese nga def li nga xamante ne moom mooy ah, umra bu boobaa nga daal di boole ñaari am ngëneelu ki nga xam ne def na xiraan ak ki def tamattu da ngay boole seen ay ngëneel ngir ne yow at nga umra nga ci même at bi te ifraat nga def maanaam mooy ne bi nga ñëwee pour aj aj rek nga def maanaam ci place jamono jooju nga xam ne li lañu mën a def mooy aj maanaam kon euh, ci kaw loolu ñoom ñu daal di nootal loolu xadis bi nag gis nañu moom al-Bukhari euh, lu bëri bëri la ko euh, indi dinañu gis ne incha allahu taala li des ci ñu xadis bi ci ñu gis ko mooy xadis 1788 mooy xadis yi ñëw ak 2952 4395 ak 7229 imam muslim tamit lu bëri la ko indi euh, indi na ko juróom-ñeenti yoon ci 1211 euh, xadis imam abu dawud na ko xadis numéro 1778 1781 euh, ba 1784 memanasahina ku hadis murudu sakaran de demi sesasakan demi sesandisan demi sesasangkat demi wisakat demi nosakat dan desa demi nosakat dan os nemaja inna ku hadis sisa sakaran teak demi nosakat dan teak pramil eh, imam malik inna ku hadis muramil sasanset emil de savanset um ahmad lubari loko indika nikisnya hadis biasa kutubu sita ñoom ñepp solo nañ ko mom des imam at-tirmidhi rahimallahu al mana babun ajrul umrati ala qadri nasab babun bunte ngi ni bo xamantene day leral ne ajrul umrati fayu umra ala qadri mi ngi toll mi ngi ci kaw dayo manam ci lu askanon tek al nasab ak choono gi manam ci lu askanon tek choono gi nga xamantene mom ngay def ci mbir mi ci la fay gi di amé loolu mom motax ci yenn yalla yu bari te li ni manam qaida la qaida la bo xamantene bu mag la moy li bi sallallahu alayhi wasallam wax soxna Aisha radiyallahu anha ne ko ajuriki ala qadari nasabiki maanaam sa pay mi ngi eh, ci dayok sa coono maanaam day askanonte ak coono gi nga xamante ne moom nga daj ci mbir mi waaye nag loolu charte bi mooy mu bañ a nekk coono goo xamante ne yow yaa ko sabab maanaam yow yaa wut ngir tamit jéggi dayoo ci coono gi waaye bu fekkente ne jaamu yàlla bi jëmmi bopp moom moo laaj coono googu masalan tey bu fekkente ne nit nga xam ne dafa jege jumaa ji eh, <coughs> dafa jege jumaa ji kooku maanaam day dox dugg ci jumaa ji maanaam kooku kenn du ko wax ne ko saa demal nga wiiri wala nga dem ba fële après nga dellu si waat doogu dugg waaye nag ki nga xamante ne dafa sori jumaa ji kooku dox gi muy dox jaamu yàlla googu maanaam coono googu muy daj moom maanaam pay gi muy am day askanonteeg coono gi maanaam kii nga xamante ne maanaam moom pay euh, euh, gi muy am ngir ne dafa daj coono kooku moom moo gën a moom mooy ëppale tuyaaba Euh, léegi nag foofu mu am beneen masala boo xamante ne bu am am solo la boo xamante ne moom moo nekk foofu mooy ñaar ñi kan moo gën ki nga xamante ne day am coono ci li muy def ak ki nga xamante ne euh, dafa am euh, moom amul coono mbir mi da yàlla daf kaa yombalal maanaam ñaar ñooñu kan moo gën parce que bu fekkente ne bu boobaa tontu bi moom mooy ne ki nga xamante ne moom mooy daj coono bi moom moo ëpp fay waaye ki nga xamante ne moom moo dul daj coono bi kooku moom gën gëneel maanaam kooku gën maanaam xaal borom subhaanahu wa ta'aala kooku lu yë kooku la def mu gën mais kee bu ñu xool tiyaaba yi moom moo ëpp fay comme ni yenente bi sallallahu alayhi wa wax ci ñi nga xam ne ñooy jàng akatu alquran yi ki di jàng alquran di ijjëntu muy metti ci moom kooku moom mooy ëpp fay ndax day am ñaari fay waaye ki nga xamante ne moom mooy jàng al mu yomb moom maahiroo day day day mu yomb kooku ma al euh, kiramil barara maanaam as-safara maanaam moom day ànd ak as nga xam ne ñoom ñooy malaaka yooyu euh, di yor téere di doon wàcc téere bi maanaam kon ñooñu ñooy ñi nga xamante ne mooy bi ay di safara kiraamin barara voilà ñooñu lay àndal amma ki nga xamante ne moom day liir muy métti muy métti dana am ñaari fay maanaam nga gis ne kon kii mooy ëpp fay mais kee moo ëpp ngëneel beneen bu koy bu koy leeral tamit moom mooy xaalu ki nga xam ne dafa dëkk ci wetu jàkka ji ki nga xam ne dafa dëkkaale ak jàkka ji comme yenente bi sallallahu amma ki nga xamante ne nag moom mooy jóge fu sori di ñëw kooku moo ëpp coono hmm. maanaam kon kooku mooy ki nga xamante ne tamit euh, moom mooy aju màkka maanaam euh, euh, boo nekkee ci kaaba gi dëkk màkka maanaam nekk ci wetu gi di umra heure bu la neexee kooku moom moo ëpp ngëneel amma ki nga xamante ne nag moom mooy jóge ci suñu dëkk yi di dem kooku moo ëpp coono kooku mooy maanaam kon diggante loolu ñaari mbir la yoo xamante ki ëpp ngëneel ak ki ëpp fay bokkuñu maanaam ki nga xamante ne masalan euh, moom bu ko nattu dalee da ngay gis ne day naturel ci moom mu mën koo supporter kooku moo gën kooku moo ëpp ngëneel amma ki nga xamante ne natt bu ko dalee day métti muy rey xeex moom ngir muñ di muñ muy métti muy muñ muñ kooku noonu moo ëpp fay maanaam fay gi maanaam ñaar day tool day askanoonte coono gi waaye ngëneel gi ajuwul ci coono gi ngëneel gi ajuwul coono bi kon loolu euh, maanaam point la boo xamante ne euh, bu mata bàyyi xel ci euh, buntu bii ci masala bi mun qaala bil isnaadil muttasil fil kitaabi qaala haddathana yazid ibn zurai mooy rayhan basara mun qaala haddathana awn mooy al imam abdullah ibn awn abu awn al muzani rahimahullahu taala Abul Qasim ibn uh, Muhammad uh, muy ibn Abubakar as-Siddiq uh, radiyallahu ta'ala anhum bokk ci fuqahaa'u fuqahaa'u sab'a yi mu ne wa an ibn Awn maanaam ba tey ci càllale googu ibn Awn nee na an Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i an al-Aswad muy ibn Qays an-Nakha'i mu ne qaala ñoom ñaar ñëpp ñu ne maanaam ñoom ñaar ñi ñu wax fii nag mooy al Qasim ibn Muhammad al Aswad maanaam ñoom ñaar rahmatullah alayhima qaala ñoom ñu ne qaalat wax na Aisha ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi dana dellu annaasu nit ñi bi nu ci ñaari jaamu yàlla yoo xamante ne ci nusuk la maanaam mooy aj ak umra wa asduru man nag danaa dellu bi nusukin ci benn jaamu yàlla kese te moom mooy aj gi maanaam mu ne ko waa man ndax lool moom lool moom ah, ndax mbir mi noonu lay demee fa qiila ñu wax ko ne ko maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko intaziri négandikul fa boo laabee faxruji na nga génn ila tan'im ci tan'im fa ahilli nga daal armal boo nga daal armal ci aj ci umra bokk suma topp nag itiya itina na nga ñu dikkee bi makaani ci bërëb kaza sàngam walakin naha waaye nag ala qadari nafaqataki waaye nag mbiri day toll day askanoon teg say nafaqa sag maam dépensé li nga dépensé ci alal ci coono ci sa temps ci loolu sa pay day aju ci loolu aw nasa aw nasa bi ki wala boog ci sa coono bi ngay def maanaam loolu yëpp ku nekk euh, mbir mi moo tax ci buntu boobu ngëneelu borom bi subhaanahu dafa askanonte ak maanduteeg borom bi subhaanahu wa taala maanaam mooy ne ki nga xamante ne day def coono ngir lu baax di def coono di def lu baax bi def coono ci jaamu yàllaam di def coono maanaam kooku noonu di investiru kooku munul tolloo ak ki nga xamante ne moom jéemut yooyu dara jàpp ne moom amal na yàlla dana ko defal ngëneel et que nit ñi dañuy sonn rek ak yooyu mais xamuñu ne affaire nekkul ci ci ci loolu maanaam ñu bari bari da ngay gis euh, kii boobu la ñu am guruur googu waru googu la leen seytaane di inspiré maanaam da di gëmloo ne leen euh, mbir mi comme ci sa xol la nekk te yow yaa gën a baax gaa yeneen Euh, ñeneen ñi c'est vrai que foo leen fekk ñi ngi jàng alxuraan ñi ngi daj coono ñi ngi def jotaayu xam-xam yi ñi ngi dem jàkka ñi ngi julli ñi ngi def nangam ñi ngi sikka mais yow yow bon bul kii quoi parce que euh, de toute façon c'est que ñooñu nañ def loolu mais euh, gënuñu kenn loolu du dëgg maanaam loolu du dëgg comme niñ ko gisee woon ci kitaabul iman te njaalbet gi al imaanu yazidu wa yanqusu iman day yokk te day wàññeeku te day wàññeeku ci jëf yi sababu jëf yi maanaam ci bu jëf yi ak sababu bàkkaar yi ci la yokkee wala muy wàññeeku kon ku jàpp ne ngëm yàlla moom de toute façon jaamu yàlla yi euh, nit ñi mën nañuy def maanaam seen coono gi ñuy def du leen jariñ dara et que yow di nga jariñu par contre parce que sa baax na maanaam kooku moom mooy mooy mooy mooy da ngay nelaw mooy mooy mooy da nelaw xam loolu géej gi di riir kon coono euh, ngëneelu borom subhaanahu wa ki nga xamante ne moom nii la maanaam da da daa investir ci loolu daj coono gi mu daj ci jamono yi nga xam ne ci ko war a daje xaqiqatan bu ñu xoolee saxaaba yi radiyallahu anhu bokk ci li ñu gënee ñeneen ñi mooy loolu saxaaba yi radiyallahu anhu mooy ne jamono ji nga xamante ne ñoom ci lañ feeñ ci lañu dundu ci la ñu daj coono gi ñu war a daj jamono jooju noonu mooy jamono ji nga xam su baaxee lépp su yàqoo lépp yàqu boo xoolee waa ahlu badrin li nga xamante ne moom lañ gën a yenn saxaaba yi radiyallahu anhum loolu la saxaaba bu fekkee badar moom moo gën bi nga xamante ne fekkewul badar même bu te ànd ak ñoom bokk jamono lu tax parce que xeex bi ñu xeexoon moom moo leen moom am doole kon coono googu ñu daj investissement boobu ñu daj moom moo leen may ki nga xamante nag moom dafay investir ci lu baax bokkul ak ki nga xamante ne du ko def maanaam moom jàpp na ne mën na relation nu mu ko mën na nooyal nu mu ko neexee moom mënuñoo yem xattaa ci mbiri àdduna noonu la demee maanaam mbiri àdduna sax ki nga xamante ne jàpp na ne xattaa euh, ci mbiri àdduna noon la deme ki nga xamante ne jàpp na ne mën ngaa mën nay joxe euh, maanaam mën nay mën nay dépenser lu ko ci coonoom maanaam maanaam lu lu mu mën maanaam ngir am ah, ngir eh, ah, entreprise am dox wala boog mbir yi dox mais kooku bokkut ak ki nga xamante ne moom su moom investissement yooyu du ko def maanaam du def dara maanaam ba ci biir entreprise bi ñi nga xamante ne dañuy investir di def di génn résultat di kii mais ñooñu yamuñu ak ñi nga xamante ne maanaam ñoom bu ñu xoolee seen liggéey ci entreprise bi defuñ dara ñaar ñi du ñëpp. maanaam léegi ci wàllu yàlla ngeen bëgg ne non en fait c'est que gars yi comprendre ruñ nangam comprendre rek bi aussi ah, mbir mi nii lay demee maanaam mooy lan mooy ne lu lu ki nga xamante ne dafay day def lu baax ak ki ki ki lu baax ñoom ñaar mënuñu toll voilà kii jëf ak ki jëful mënuñu toll voilà léegi nag après lan moom mooy question bi manam ay at après dañuy étonné wu lan motax ci mu raw ñu ñom ñuy étonné wu lan motax manam japp né ne parce que pourtant pourtant ñoo màggandoo pourtant nangam pourtant nangam pourtant ñoo nekkandoo woon fi mais parce que bi muy investir wu ci lii yow danga togon di fof di fof ak di di di passer sa journée bi ci télé bi voilà

yal nañu yàlla sàmm xadis euh, bi imam al Bukhari rahimahullah taala ibn xadis bi cinq cent seize mille euh, cinq cent dix-huit mille cinq cent soixante cinq cent soixante et un cent cent onze dina ko tamit mille sept quatre-vingt-quatre deux muslim in na ko xadis numéro 1211 moom ñeenti yoon moom Abu Dawud إنك حدثنا من ميسر سان سان دزت دمي سانك دمي سيسنا النسائي إنك حدثنا من دمي بيسان ترى إمام أحمد بن حنبل رحمه الله moom indi ko juróom ñetti yoon kon ñu gis ne xadis bi asaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko moom des imam at-Tirmidhi ak imam ibn Maaja rahimahullahu jamii muna baabul mu'tamar idha taafa tawaaf al-umrati thumma xaraja hal yujzi'uhu min tawaaf al-wadaa' baabu buntu al mu'tamir nga xam ne moom mooy umra iza taafa bu tawaafee bu tawaafal umra maanaam ngir ne umra moom tawaaf la am benn tawaaf la am euh, bu ndax bu defee loolu su ma topp mu génn ah, maanaam muy mu génn dem ñibbi ji ginnaaw mu defee tawaaf boobu hal yujzi'uhu ndax loolu dana ko doy min tawaaful wadaa ci tawaaful wadaa tontu bi mooy waaw waaye ci charte mu yéene ko ci maanaam maanaam bi parce que tawaaful wadaa waxoon nañu àtte bi Euh, ne saa yoo duggee Makka maanaam saa waree génn da ngaa a dem def tawaafu wadaa ba mu ne Hanafi yi euh, rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne loolu sunna la euh, waaye bi nga xamante ne moom mooy bapare pare ñoom dañoo jàpp tamit ci jamono aj aj aj moom moo am tawaaful buñ génnee jamono aj tawaaful wadaa du am waaye nag ñi nga xam ne ñooy jumhur ulama rahmatullah dañoo jàpp ne da nga ko war a def tawaaful wadaa maanaam maanaam ñoom d'accord nañ ne dafa war maanaam ñi nga xam ne mooy jum jumhuur dañoo jàpp ne dafa war maaliki yi ñoo jàpp ne mandub la maanaam ne euh, ngëneel la euh, euh, maanaam wala boog mustahab mandub mustahab maanaam lu ñu sopp la waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne soo su ak période aj rek nga koy def ak umra ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu jumhurul ulama rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne dafa war te saa su la léegi bu fekkent ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam euh, tawaaful wadaay bu fekkente ne da ngay bu boobaa mën nga koo def waaye maanaam mën nga koo dugal maanaam mu dugg ci ildiraju niyya maanaam loolu mooy sart bi moo ci ci loolu day day dépendre ci ki jàpp ne war na wala boog sunna la maanaam mbir mi boobaa dañuy daal di xool ci loolu noonu mais ki nga xam ne moom mooy dafa jàpp ne dafa war moom mooy faw mu def li nga xam ne moom mooy tawaaful ah, moom moom dafa war kooku mën na def umra euh, mu def tawaaful mu def tawaaful wadaay ah, mu nekk tawaaful mu euh, umra bi mu nekk tawaaful wadaay en même temps maanaam loolu mooy ku mu yàkkamti koo xamante ne daf ne man de bëgg naa def umra léegi waaye dañoo war a dem baa ngee di ñu xaar voilà moom mën na dem defi ci umraam maanaam tawaaf boobu mu def ci umra mu daal di ci yéene beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom mooy sartu euh, euh, bu fekkente ne ci aj la nag masala bi tamit day dellu si waat moom mooy nga xamante ne dafa dem aji ji su defee tawaaful ifaada maanaam mën na ci yéene wàllal tawaaful wadaam maanaam moom mën naa bàyyi tawaaful ifaada au lieu mu def ko bu njëgsee donc du def maanaam suñ jugee Arafat maanaam si ëllëg ba dem Mina ko neexee mu bañ def tawaaful ifaada mu bàyyi ba war a ñibbi te mu bàyyi ba war mu daal di yéene def tawaaful ifaada ba pare dugal ci suuf tawaaful wadaa maanaam yéene wàlla ko ci maanaam parce que lu tax parce que bi sallallahu alayhi wasallam li nga xamante ne moom rek la waxoon mooy ijaalu axira ahdikum bil bayti tawaaf def leen ne di mujjee am maanaam li ngeen di mujjee séq ak néegu yàlla bi ak mooy na nekk tawaaf maanaam comme moom ngeen di mujjee séq kon na balaa balaa dara xew nga xam ne boo ko defee rek da ngay génn dem maanaam boobaa mën ngaa def tawaafu ziyaara tawaaful omra imaam nag al-Bukhari rahimahullah dafa def daf ko def ba pare laaj def ko istifham maanaam mu nekk question hmm. lu tax mu nekk ab laaj ngir ne xadis euh, bi muy indi dafa desee leeral ne tawaaf boobu maanaam ne soxna Aisha radiyallahu anha tawaaful beneen tawaaf waaye zahir bi mooy ne tawaaful beneen tawaaf bi mu defee umra rek daa daa di dem maanaam muy ne tawaaful umra boobu moom moo taxawoon ci moom tawaaful wadaa wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddathana abu nu'aym tamam al fadl ibn dukayn mu ne qaala haddathana aflah ibn humayd mu abu abdurrahman al ansari al madani عن القاسم بن محمد بن ابي بكر رضي الله عنهم رضي الله عنهم من عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت نحن خرجنا جن مهلين ني دادي ارمال بالحج اك في اشهر الحج تي وير ادي وحرم الحج اك حرم حج فنزلنا نراد وات صرف مانم صرف لا وات فقال ما النبي ينتبه صلى الله عليه وسلم لاصحابي اصحابي man képp koo xam ne lam yakun nekkul woon maahoo di ànd ak moom hadiyun hadiyu fa ahabbate mu sopp an yajala mu def ko umratan fal na ko def wa man képp koo xam ne kaana nekkoon na maahoo di ma annabi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa rijalun ah, ak min ashaabi ci mi zawi ku mel ne Seydina Talha ibn ku mel ne Seydina Ali bi mu dellu see bi mu Ah, moom tamit loolu la def radiyallahu ta'ala anhu falam takun nekkul woon lahum ñeel leen umratan umra fa daxala mu daal di dugg alayya ci man annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa ana fekk man ab kii maa ngi jooy fa qaala mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ma yub kii kay na lan moo la jooy loo qultu ma ne ko sami'tu ko dama dégg taqulu ngay wax li asxaabike sa saxaaba yi maa qulta la nga wax fa mu neex ko man nag ñu daal di may al umra bi maanaam lii mooy maanaam nit bu gisee ni lu baax ak koy rëcc maanaam da koy metti waaye gis ne lu baax ak lay rëcc mais garaawul la nga sànni loxo bi ginnaaw sax wiccax ko maanaam jàpp ne garaawul amul solo maanaam loolu du doxale nu ko am xel dégg euh, moo tax euh, euh, qaala yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne wa ma sha'nuki waa luy seen mbir qultu nee na ma ne ko laa usalli julliwul maanaam damaa julliwul maanaam damay gis mbërëk expression la pour wax ne damaa gis mbërëk comme wolof yi rek ni ñu koy waxee julliwuma setuma nangam xeetu wax yooyu voilà donte baatu setuma nekkut baat bu gën maanaam ngir ne euh, mu indi amalgame yu bari bari ci wolof ba jàpp nañ sax ne bu gisee ay mbërëgam warul maanaam yu bari bari du war warta togg warta laal sajaada bu ko laalee nit ñi ci mën a julli warta maanaam ay xeeti wax yoo xam ne da ngay maanaam bu ci gën a tumuraanke moroomam ngir qaala mu ne falaay yadirki yonent bi saa ne ko mais du la lor loolu dara di anti yow min banaati aadama da bokk rek ci doomu moom aadama yi sa sa doomu moom aadama yu jigéen yi nga bokk rek maanaam mooy yow lii la dal ni yëfi nit la am maanaam du punition du mit du co du du du dara du am rëbb du dara fi nga gisee mbërëg bii nii daaw jaadu kese voilà te subhaanallah lii Seydina uh, Usayd ibn Xudayr wax radiyallahu dëgg um, uh, bi ma hada bi awwali barakatikum ya ala Abubakar radiyallahu anhu du seen première barke yéen waa kër Seydina Abubakar parce que ñoom saa yu dara mbir mi gën a njariñ juddoo ci am njàng juddoo kon uh, loolu du la dara Ah, kutiba ndax ah, oh, ndax dogal nañu alayki ci yow ma li nga xamante ne kutiba moom lañ dogal alayhi ni ci ñoom maanaam ñoom doomi moom aadama yu jigéen ñi alayhi salaatu salaam maanaam li li leen di dal moo la dal rek li yàlla dogal ci ñoom moom la yàlla dogal ci yow rek fokk wune ko nekkal fii xajjatiki ci sa ac asallaahu xëy na moos yàlla an yarzuqaku an yurziqakiha mu wërsëgal la ko waaw yàlla wërsëgal la ak gi mat xëy na yàlla wërsëgal la umra gi mat maanaam loolu moom mooy ku ñu tënk kon amul dara lu ko lu tegu ci kawam xaalaat mu ne fa kuntuma nekkoon xattaa mbete nafar naa ñu daal di dem min minan ci minan fa nazal ñu daal di wàcc almuhassab almuhassab fa daa mu daal di woo abdurrahman ibn abubakar radiyallahu anhu fa qaal mu ne jigéen mi al bi manam moy ngeen dem ba at-Tan'im hil nga dadi di eh, nga dadi di armal bi umratin ci umra suma top nak furuha ngeen matal min tawafikuma sen tawaf antazirukuma maa ngi leen di nekk haahuna mhm. maanaam kon eh, nga gis ni maanaam mi ngi len di nekk fofu ci al-muhassab lan la def ci al-batha manam moy mu dadi di wax na dem len ngeen matal sen tawaf manam moy kon tawafu tawaful umrah tawaful umrah parce que umrah la wara def am buñ ñu jugee euh, dañu def tawaf am tawaf umrah tawaf bo moy taxaw taxaway tawaf wadaa li motax mom al-Bukhari indi ko taala dégg nga fa atay nañu da daal di dikk nag fi jow fi li ci digu guddi gi fa qala mun farahtuma ndax da ngay nan nopi non farahtuma ndax fiix ngir ci mbir bu pare ngeen ah qultu man ko naam waaw man ngi sabatu ah mooy pare fiix waaw maanaam nga gis baat yi ah, làkk yi ni ñu jegewantoo ni ñu bokkee ay cosaan ni ñu nuróowee ci ci cosaan te loolu dafa bëri ci ci ci ci ci ci làkk booy xool làkk yi baat yi ñuy nuróole maanaam yi nga xam ne dañuy xaw a jegewantoo nuroo nga xool leen da ngay gis eh, ne kéemtaanu yàlla ngay gis ci mbir maanaam rapport bi nga xamante ne moom la baat yi am benn bu ci nekk rapport bi moom ak beneen bi mhm. ngir nuroo yuñ nuroo te lool noonu ci langue yëpp la maanaam rapport boobu ci langue yëpp la am ci làkk yëpp la te lu ci ëpp ci làkk yi même dangay xool wolof dana làkk ah kii ne langue kii ne luxa ah maanaam gis ni ñu nonu le, le, le, la mbir yëpp noonu la niroowee ci bëri bëri na nee na ba ko ndax noppi nga am pare nga ka qultu maniko ni ko naam waaw mu dadi di bi ci euh maanaam bi fi ashabi ci sahaba bi radiyallahu anhum farta mu dadi di annas annaasu nit waman tawaafa ak ki nga xamante ñi nga xam ne tawaafoon nañ bil bayti ci eh, kaaba gi qabla salati subhi lu jitu ñu julli julli suba mooy ñu defoon seen tawaafu wadaa su ma topp nag xaraja mu daal di génn mu wajjahat daal di jublu ilal madinatu munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam maanaam hmm. kon gis nañ li tax imaam al waaye mu daal di koy def ak laaj ngir bi hmm. nga xamante ne moom moo ci nekk ci ñàkk a leer ci dalil bi waaye tamit dalil la ba tey maanaam ci mbir moomu ngir ne amul leneen luy wane ne ñoom def nañ leneen lu bokk bi voilà ah. wallaahi eh, kon xadis bi gisoon nañ ko léegi gisoon nañ ne xadis bi asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom des imam at-Tirmidhi rahimallahu al-jamii mu ne baabun bunte ngi ni yafaalu day def fil umrati ci umra maa li nga xam ne yafaalu moom lay def fil xaj ci at maanaam jëf yi nga xamante ne moom la ñuy wax ci umra laat mooy jëf yi ngay def ci at rek voilà boo ñëwee laataa ngay dem arafat wala boog boo jógee arafat boo ñëwee ah Makka li ngay def loolu rek moom mooy umra mooy armal bi nga xam te ne moom ngay armal euh, gisoon nañ ni différence bi fi mu nekkee mooy ci miqaat loolu gisoon nañ ko te leeraloon moom mooy boo génnee loolu daanaka yeneen at yi ndaw ndawaan yi li nañ ko tamit li ci des mooy jëf yi bu dee jëmmi jëf yi umra dafa am euh, ñetti ponk comme ni nga xamante ne noonu la moom mooy waxu jumhur ulama rahmatullah alayhi ñi nga xamante ne ñoom ñooy Hanafi rahmatullah dañoo jàpp ne benn ponk la am mooy tawaaf Hanafiya yi pour ñoom umra benn ponk rek la am mooy tawaaf Kaaba gi jeex na ñi nga xam ne ñoom ñooy jumhur muy fuqahaa Shaafi'i Maaliki ak Hanaabila yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne ñetti ponk la am moom mooy tawaaf hmm, dëgg maanaam armal armal hmm. tawaaf ak sa'yu armal tawaaf ak sa'yu mooy daw diggante Safa ak Marwa hmm. ñoom ñooy ponki umra ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shaafi'i rahmatullahi dañ cee yokk benn mooy watu wala wàññi sa maanaam yooyu moom mooy li ñu wuti ci ni ñi ñuy jëfee ci omra sinon jëmmi jëfi yëpp benn la ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne képp ku armal ñëw màkka boo ñëwee màkka nga daal di wër kaaba kaaba gi comme ni nga xam ne noonu lañ ko leeralee biñ jamono bi ñu gis at mooy tàmbalee ci xajarul aswad foon ko ah, teg say loxo foofu ba pare nga daal def sa juróom-ñaari jéego juróom-ñaari wër yoo xamante ne beneen foofu tamit Hanafi rahmatullah dañoo jàpp ne ci tawaaf bi maanaam euh, ñetti wër yu njëkk yi ñoom ñooy farata hmm. yeneen yi ci des dañ koo sunna la maanaam ñett yu njëkk yi mooy yi nga def ramal yooyu moom mooy farata yeneen ci des de sunna la voilà ñoom noonu lañ koy jàpp maanaam waajib sa la ñuy wax voilà yi sunna la waaye nga ñëw tawaaf kon nga daal di wër tawaaf comme niñ ko waxee woon rek hmm. booy saa yoo yegsee ci ruknul yamaani ak ruknul aswad xajarul ah, asad nga daal di leen di eh, raay bu dee mën nga fóon sinon nga sori leen sa loxo fóon eh, am na tamit luñ ci def mooy eh, foofu dañuy sopp nga def ramal mooy daw boobu ngay daw waaxu boobu ngay waaxu te mu jege daw ci ñett yu njëkk yi nga dox noor nga yam ba noppi nga daal di nga def ittibaa maanaam mooy sa mbagg bi nga xam ne mooy mbaggu ndeyjoor bi nga daal di koy wàcce maanaam nga wàccee ko lii euh, ci bi ngay wër euh, euh, kaaba gi soo paree nga daal di suñu suñu soo paree juróom-ñaari nga dem ci ginnaaw maqaaba Ibrahima nga taxaw fu julli fa ñaar rakka soo paree nga dem naan sa zam-zam ah daal di daw diggante safa ak marwa soo paree nga daal di watu wala nga wàññi sa karaw jeex na lii mooy umra lii bu dee jàpp nga ko mooy jàpp nga nu ñu umra kenn gën lu ko mën dégg kon li ñuy def ci omra mooy jëmmi li ñuy def ci aj léegi aj lan la ko ëppale mooy après dem arafat loolu rek la ko ëppale mooy jugee arafat après dem musdalifa soo jugee musdalifa dem minan soo demee minan sànni say jamra euh, de ñëw dem rendi watu ji loolu la ko ëppale mais aj umra gis ngeen ni mu yombee amul lenn lu ci compliqué voilà maanaam fi mu toll <laughs> ah nit ñi maanaam yaa subhaanallah jullit ñi dañoo am ak xeetu tayyel bu leen du dugg rek yooyu waaye jarul gidd maanaam mais comme tayyel da leen dugg maanaam li mu laaj rek mooy organisateur tam mooy kuy organiser nga xamante ne imaam lay doon boo xam ne moom mooy organiser bi sinon fawda day am fawda mooy pucc ko moom mooy am kon ku nekk def lu la neex ku nekk dem fa la neex mais su dul loolu ah lii jarul jarul gidd jarul mën na ñoom imam du ñoom ñuy giddee di ci loolu jaru nii la umra yombe noonu lañu yàlla sàmm نعم قال بالإسناد المتصل والكتاب لا حدثنا أبو نعيم بن فضل بن قال حدثنا همام بن أبي يحيى بن دينار العوزي abu abdullah mu ne qaala xaddasanaa ataa ibn abi rabaax mu ne qaala xaddasanaa safwaan ibn ya'la ibn umayyah mu mooy at-tamimi al-makki summa al-madani bokk ñetteelu génération mu ne yaani moom mu ne neen maanaam an abiihi mu jëlee ci baayam mooy sayyidina ya'la ibn umayyah abu xalaf radiyallahu anhu abu dañ ko wax tamit abu safwaan wala abu xaalid al ta at-Tamimi al-Makki radiyallahu ta'ala anhu bokk eh, génération génération saxaaba yi eh, radiyallahu ta'ala anhum génn àdduna ci li wërwërloo ci quarante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waay boo xam ne ataa dikk na annabi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu woote moom il jaaraana mi ngi ci jaaraana wa alayhi te jubba wa alayhi te mu nekk ci kaw ci moom asaru eh, Euh, jeexital ak alxaluuqi gëtt gi maanaam gëtt goo xam te dañ ko defaree safran euh, euh, zafaran mooy safran aw qaala wala bokk sufratun maanaam mooy mbokk maanaam couleur bu jaune fa qaala mu daal di wax ne kayfa ana naka ta'muruni nga may digal an ta an asna'a ma ci ma sama umra fa mu daal di wàcce allahu bur yàlla nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa sutira ñu daal koy muur bi maanaam ñu muur ko sangu ko ah bi saw bin ci mbalaan wa wadittu ma daal di mébét an nee naka man ka xat dëgg-dëgg ra'aytu gis naa annabi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waqat dëgg-dëgg unzila wàcc nañ alayhi ci moom alwaxyu waxyu wi fa qaala omar sayyidna omar radiyallahu anhu ne ta'ala kaay ayasurruka moom musul woon a gis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu bi xaal bi muy nekke maanaam ndax bu ñu koy wàcce day gis day ñàkk hmm, voilà diis sidit di di di di di di di ngir ne wax ji dafa diis comme ni ko Alxuraan wax inna sanulqi alayka qawlan saqiilan dañuy ci wax ju diis mu ne Seydina Umar radiyallahu anhu ne ma ta'ala ñëwal ayasurruka ayasurruka ndax bi dana la bégloo an tanzura ci nga xool ila nabi ci yonent وقد تفك نك انزل من وجه الله بريا الله ولي وحي وحي قلت من نعم واو واو انا انا فرفع مراد يكتي طرف الثوب آه، تشات مبلان فنظرت من انا ما دار خول اليه تي موم لهو مو نيل كو غطيتون اك مانا خيتو خران واحسبه ا آه، نانا آه، مانغي نجوت مو نك غطيت بكري maanaam kéem euh, xaramu maanaam bruit boobu mu kii di def gëlëm gu ndaw di def voilà mais na fa lamma ba nga xamante ne suriya euh, wuññeef na am wallif ko maanaam dindi nañu li nga xamante ne mooy mooy woyofalal nañ mbir mi maanaam mooy euh, yëngat kii boobu tàngoor googu ko daloon maanaam léegi nag dal na qaala mu ne ayna ana as-sa'ilu ka ji laaj anil umrati ci umra kan moo doon laaj umra bi اخلع مانام سيميل انكا وليف الجوبات سجوب امونا جوبا داي ام كوبشن مام ديندي كو واغسل تيغا رخص اثر الخلوقي جيختلو غتغي انكا تيو وانك تيغا ستال السفرته ها ا زعفران مام جون وصنع تيغا ديف يوم رتك تسع عمرك كما تصنع كم نيغا ديف حجتك fii hajjika ci sa aj maanaam loolu tax imaam al-Buxaari indi ko rahimahullah il defal sa umra comme ni ngay def sa aj maanaam mooy kon liñ lay wo tere ci armaalu aj moom lañ lay tere ci armaalu umra yiir yi nga xam xamante ne moom lañ lay tere nga sol mooy lu ñu lu ñu ñaw ah euh, euh, lu nga muur sa bopp muur say loxo wala ah, yooyu ak sa tànk yi lu ko muur yooyu lañ lay tere muur sa xar kanam yooyu lañ lay tere ak parfumé ak tusgalu Ah. ba pare rek wax ya, labbaik allahumma la labbaik la syarika lak bayk innal hamda wa ni'mata lak wal mulku la sharika bo ah, Booy manam ah, nga wax lolu comme ni nga xamantene nonu ngay def ah hadis bi imam al-Bukhari rahmalahu ta'ala inna hadis bu 1636 di la ko indiwaat hadis numéro 1847 ak 4329 ak 4985 imam muslim indi na ko juróomi yoon ci xadis numéro mille cent quatre-vingts imaam abu dawud indi na ko xadis numéro mille huit cent dix-neuf imaam at-tirmidhi indi na ko xadis numéro huit cent trente-cinq imaam an-nasa'i indi na ko xadis numéro deux mille six cent soixante-huit deux mille sept cent neuf ak deux mille sept cent dix imaamu ahmad indi na ko xadis numéro dix-sept mille neuf cent quarante-huit dix-sept mille neuf cent soixante-quatre dix-sept mille neuf cent soixante-cinq ak dix-sept mille neuf cent soixante-sept ku ñu gis ne xadis bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko mu des al imaam ibnu maaja al-qazwini rahimahullahu al-jamii' وقال بالإسناد المتصل في الكتاب لي حدثنا عبد الله بن يوسف أبو محمد التنيسي من قال أخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة بن الزبير بن عوام عن أبي مجيد بن الزبير بن عروة بن الزبير بن عوام رضي الله عنهما أنه قال لنا قلت لنا وإحنا لعائشة بن صحنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي دي صحنا ينتبه صلى الله عليه وسلم وأنا فك من يومئذ بس حديث السن ما نك كو كوبره مرام maanaam xarisu sinn mooy ku ndawee ay maanaam ku yees ay at maanaam nekk gone wala lay nekk nee na ah, ko arayiti maanaam euh, waa laaj bi bi mu ko koy laaj nekkutoon mag maanaam la woon laaj ko ko ko laaj moo tax mu ne qawlallahi waxu bur yàlla tabaraka wa taala tabaraka maanaam sax na ak maanaam te sax ak barke wa taala te kawenam ne inna safa wal marwata min sha'airillah wa faman hajjal bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima ma inna safa naka safa wal marwata ak marwa min sha'airillah dañoo bokk ci mandarga yi bu Boroom subhaanahu wa ta'aala maanaam feeñal maanaam màggal faman képp koo xam ne xajja da nga aj al bayta néegu yàlla bi néeg bi aw wala boog i'tamara nga armal falaa junaha aayul mu alayhi ci moom an yatawafa ci mu tawaaf bihimaa ci ñoom ñaar maanaam mooy mu baagante an yatawafa ci mu baagante bihimaa ci si ñoom ñaar mooy juróom-ñaari daw safa ak marwa yooyu mu ne falaa uraa mu ne mu nee na man ma ne ko falaa uraa gisuma ne ala ahadin ne nekk na ci kaw kenn dana war ci kaw kenn si an dara allah yatawafa ci bu fekkente ne tawaaful bihimaa ci ñoom ñaar maanaam ñoom dañuy bi ñu nekkee xale lañuy dod lañuy toppatoo maanaam masala yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk déjà ci alquran ak hadith yi ak yu mel noonu bi ñu nekkee xale la ñuy toppatoo nekk ba nekk mag di ko di ko toppatoo dégg euh, mooy li jaaru itam maanaam loolu tamit mooy li jaaru voilà maanaam xale yi moo comme kii nii non day compliqué ci ñoom dañ toog kër xaqiqatan loolu ñàkk a maanaam ñàkk a jox xale bi chance am la dégg fa qaalat nee na mu ne Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha ne kallaa jajjul maanaam mukk mbir mi déwut ni nga law kaanat bu nekkoon ne kama taqulu kem ni wax kaanat kon danaan li mu li muy doon mooy fala junaha du aay alayhi ci moom allah yatawafa ci mu ci mu tawaaf leen daa jàpp ne bu ko deful mu ne yow loolu mafhumul muxaalafa la te mafhumul muxaalafa mantuq bi mu ëpp doole balaa mafhumul muxaalafa ñu koy bàyyi xel ci dara dafay fekk mu bañ a wuuteeg mantuq ba pare day fekk ne charte bi tax ñu indi maanaam moom bu doon maanaam moom dégg-déggam bi doon na mën a jug su fekkoonte ne ci cosaan nit ñi dañ daan dañ daan tawaaf maanaam voilà ah voilà maanaam wax jooju dana jub waaye comme que ci cosaan gars yi dañ doon ragal a tawaaf looloo tax waxam ji du jub waaw moo tax mu ne mbir mi demewut ni waxe mu ne innama li am ba des mooy unzilat wàcce nañ hadhihi ayat aaya bi fil ansaar ci wal ansaar kaanu nekkoon nañ yu xilluuna doon doon wax di talbiya li manaat ñeen manaat hmm? eh, manaat seen yàlla la woon manam yalla ñom dañu jël yalla yi jigenam dem laata dañu jël ben yalla bu jigen ñu tabax defar ko mu jigen ñu ne ki mom moy allah bu jigen ñu tuddé ko laata ñu jël man nan bu jigen ñu tuddé ko manat al aziz bu jigen ñu tuddé ko uzza am non lañ doon def <laughs> wa barab subhanahu wa ta'ala kumuz zakar ala ala kumuz zakar ala ala kumuz zakar wa lahu al unsa yéen da di bëgg doom bu góor yi mais yàlla maam yéen yàlla moom jigéen ñi ngeen ko wéetale yàlla yàlla sàmm ah maanaam loolu tamit xeetu kilo boroom borom subhaanahu wa ta'aala gis ni muy alxuraan ni muy waxee ak nit ñi maanaam ci loo xam ne rek seen xel da koy war a mën a yàlla maanaam maam yow yow doom bu jigéen boo saa yoo ko amee. da toog ay fan wala ay weer yoo xamante ne doo nangoo génn ngir gàcc léegi yow nga yàlla moom dafa war a nekk jigéen wala mu am ay doomu jigéen ah malaaka yi ajaalul malaakata alladina hum ibadur rahmani wala boog inda rahmani ci yeneen jànge inaa sax ashahidu xalqahum xam nga loolu tamit loolu mooy malaaka yi lañu wax ne ñoom ay doomu yàlla la mais nag malaaka yi ay jigéen lañ mhm. maanaam ñoom noonu lañ doon gisee <laughs> yàlla nañ yàlla loolu tamit beneen bi maanaam yooyu ay kii la da ngay gis ne euh, euh, jëmmi problème bi masalan tey boo xoolee ci catholique yi muy jëmmi problème bi leen dal li nga xamante ne mënuñu yëkkati lënt lënt bi ñu ngi ci toog di di xalaat nan la ñuy def ndax prêtre yi duñu marié ak yooyu maanaam ñoom dañoo jàpp ne yàlla am na doom ah ah am na maanaam eh, eh, am na ku jigéen koo xamante ne moo ko jurali doomam itam lépp am na sauf que ki gën a sell maanaam ñoom mais sauf que ñoom jàpp nañ ne nit ki bu sellee ba sell warta am jabar warta am doom maanaam mooy bu nekkee prêtre wala maam nekk ci clergé ci jàngu bi warta am jabar warta am doom te yàlla pourtant yàlla moom wutal nañ ko doom ba pare wutal nañ ko moom maanaam loolu tamit maanaam loolu moo lay wan ne bu fekkente ne gis-gis dafa ñaaw euh, ñëpp di ci demandoo noonu boo doon xalaat rek yow da bokk ci ci mariirandoo bi wala ñaala xam dégg nga mu nekkoon nag wakaana te nekkoon na manaat moom xasuwal xudayd maa ci wetu xudayd la nekkoon wakaanoo ñu nekkoon nag yataharraju na ñuy muy muy ñuy tiislu lool ñuy muy jafe lool ci ñoom an yatuufu ci ñuy tawaaf bayna safa diggante safa wal marwata ak marwa maanaam ñoom euh, comme que dañ ko daan def jamono jaahiliya donc ñoom mbir mi daal da leen a metti woon quoi mm-hmm. dégg nga falamma ba nga xamante ne jaa dikk na lislaam lislaam sa aluñu laak rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam an zalika ci mbir moom fa anzala mu daal wàcc allahu jalla ta'ala ji kawaji inna safa wal marwata inna safa naka safa wal marwata ak marwa min sha'airillahi dañoo bokk ci mandarga yàlla yi yàlla màggal kon nag fa man képp koo xam ne xajja aj naal bayt néegu yàlla wi awwal booge ay tabara mu umra fala junaha du ay aj du ay alayhi ci moom an yatawafa ci tawaf bi ma ci ñaar mm-hmm. zaada euh, yokk na ci euh, Sufyan mooy ibn Sa'id as-Sawri wa Abu Muawiya euh, mooy Muhammad ibn Khazim ad-Darir an Hisham mooy ibn Urwa ibn Zubayr ibn Awwam mu ne maa atammal maa atammam mottalul mottaliwul matalul wala du matal Allah buur yàlla xajjam ri in ajub doom ajub cam maanaam ajub waay wala umratahu du caagin umram boo xamante ne lam yatuf du tawaaful bay na safa diggante safa ak marwa ak marwa mm. ku tawaaful diggante ak safa ak marwa sa sa aj matul maanaam kon day dëgëral ne ponk yi ci ponk yi ci aj ak umra comme ni nga xam lañ ko gisee te waxu jumhuuru ulamaa rahimahumullahu rahmatullahi alayhim xadis bi imaam al Buxaari rahimahullahu taala woon na ko gisoon nañu xadis bi moom 1643 ci aj Eh, ci kitaabul xaj bi gis eh, imam al-Bukhari insha allah dina ko indi rahimahullah ñaari yoon xadis numéro 4495 ak 4861 imam Muslim indi na ko ñeenti yoon xadis numéro 1277 imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1901 imam Tirmidhi indi na ko xadis numéro 2965 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 2967 ak 2968 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 2986 imam Malik indi na ko Euh, indi na ko xadis numéro vingt cinq mille cent douze vingt cinq mille deux cent quatre vingt dix huit ak vingt cinq mille neuf cent cinq euh, kon ñu gis ne xadis bi waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañu ko rahimallahu ljamii mu ne baabun bunte ngi ni mata ana kan ya xellu ci lay simmeeku al nga xam ne dafa umra maanaam fi muy armaale moom xamoon nañ ko moom mooy ci miiqaat yi loolu nañ ko léegi nag kañ lay simmeeku moom ki nga xamante ne moom mooy kii euh, omra te loolu euh, euh, sikk nekkul xam na xam nañu jamono ji moom mooy bu tawaafee ba bu bu defee dawee diggante Safa Marwa ba noppi rek maanaam ba watu maanaam day daal di simmeeku hmm? dégg nga moo laaj bi moom moo tax tontu bi moom leer na wa qaala ata Eh, muy ibnu abi rabah mu an jabir muy jabir ibnu abdullah eh, eh, jabir ibnu abdullah al ansari radiyallahu taala anhuma radiyallahu taala anhuma no mu ne amara digale nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba ba daal mooy sa xadis mi ñu romboon ñu romboon ci jotaay bi weesu voilà mu ne sallallahu alayhi wa sallam digal mi an yajaluha ci ñu umratan umra maanaam mooy biñ ñëwee pour ak si mën a leen déedéet finalement bàyyi leen fu ngeen def umra wayatuufu te ñu tawaaf su ma topp nag di xasiru ñu daal di wàññi awa wa maanaam wàññi seen karaw yi maanaam man bu dee rek da ngay umra yi kese kese kese maanaam nga wàññi bi mi ngi gënee su fekkente ne da ngay a aj teg maanaam booy def tamat toog waaye su fekkente ne moom naroo ko def maanaam wattu bi tamit day daal di day daal di day daal baax moom day daal di gën maanaam wala boog ñoom ñaar ñu tolloo rek ah Euh, wayax lu ñu daal di simmeeku maanaam ñu watu xel euh, fii am solo mooy ne bu naan dañu nañu tawaaf après ñu daal di ñu daal watu li muy tekki mooy ginnaaw ba ñu tawaafee ñu def Safa ak Marwa maanaam euh, julli ci ginnaaw ma xam naan dem daw Safa ak Marwa maanaam loolu la ci jublu waaye tegtalewul rek jëmmi tawaaf bi kese. من قال بالإسناد المتصل في الكتاب لا حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن راهوي من عن جرير مم ابن عبد الحميد عن إسماعيل مي ابن أبي خالد إسماعيل ابن أبي خالد أه مي إسماعيل السبعي رحمه الله تعالى أبو عبد الله رحمه الله diwaa Kuufa rahimahullaahu taala bokk ci ñeenteelu génération bi جنا عبد الصانج وانا جنا عبد قال سنك وانا جنا قال سلام عن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه الصحابه مو بيصير نشوف في كتاب الزكاه آه اكتب كتاب الحج تبع بيصير نشوف عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه ابو ابراهيم بن كلاقة وابو محمد ولا ابو معاويه الاسلمي الكوفي جن ارنا كتب سيزمان جن وقال ينتقل صلى الله عليه وسلم في الكوفه من قال mu ne i'tamara umra na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam waa tamarna te ñun umra maahu ànd ak moom wa ataa mu dikke ak safa safa wal marwata ak marwa waa tey naaxaa ñu daan koy dikke maahu ànd ak moom euh, loolu subhaanallah teggin gu kawe la ci waxin maanaam waxul ne ñu neg yenente bi saa nañ def lii déedéet daf ne yenente bi saa def na lii ñun tamit ànd moom def loolu maanaam dañ kaa jiital xattaa ci waxin wi dañ kaa jiital comme li Seydina aw rasulullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mook Seydina Omar mook Seydina Abubakar radiyallahu anhu Seydina yonent bi sallallahu alayhi wa nañ di waxtaan man ma ànd ak ñoom di waxtaan maanaam mooy au mu ne ñun ñett ñoo toog di waxtaan mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa Seydina Abubakar radiyallahu anhu ñoo doon waxtaan man ma bokk ak ñoom di waxtaan loolu gën te lu lenn rek lay tekki lan mooy ñun ñoo doon waxtaan waaye buggul wax ne ñun ñoo waxtaan di yamale boppam ak yonent bi sallallahu ak Seydina Abubakar radiyallahu anhu maanaam buntu teggin la xoolal saxaaba yi radiyallahu anhum mu ne kon yonent bi sallallahu alayhi def na lii dugg na Makka tawaaf ñu ñu tawaaf ànd ak moom maanaam loolu mu ne bi bi yonent bi tawaaf ñoo doon tawaafam munoon la waxee noonu wala boog dugg nañ Makka ñu ne yonent tawaaf waaye daf ne yonent bi dugg na sallallahu alayhi di tawaaf ñun ñu tawaaf maanaam euh, dégg waataa mu dikkee ak safa safawal marwa ak marwa wa ataynaahaa ñu dikkee ko maahu ànd ak moom wa kunnaa nekkoon nañ nasturuhu di ko suturaal min ahli makkata ci eh, waa makka an yar bi ci mu bañ ko jox ahli biñ ñëwee ci umratu qadaa fa qaala wax la ñeel ko saaxibun ab àndandoo li ñeel ma akaana ndax ad dugg na kaaba qaala mu ne ko laa déedéet qaala mu ne fa xaddis naa nettali ñëw nu maa qaala lan la waxoon li xadijata ñeen soxna xadija radiyallahu anha waaw mu ne ko léegi dama bëgg nga nett li ma la waxoon soxna xadija radiyallahu anha qaala mu ko daf ne leen bashiru na ngeen bëggal xadija bi baytin ci kër minal jannat ci àjjana min xasabin boo xamante ne ci jamaa la amee maanaam mooy xasab mooy euh, luy melax la jamaa mooy lu ulu kuraay la saxaba boo xamante ne coow amu ci wala nasaba coono amu ci lii moom def ko waxoon parce que Seydina Jibril alayhi salaam moo ko waxoon voilà waaw ñu ko haadihi Xadiija qad aqbalat wa ma'aha inaa'un min sharaabin fa idhaa hiya jaa'at radiyallahu anha fa fa fa fa آه. فإذا هي جاءت فقرأ عليها نعم فقرأ عليها من فقرأها فقرأ عليها من الله ومني السلام وبشرها ببيت في الجنة ليس لا ليس فيها ببيت من الجنة من قصب ليس فيها قصب ولا نصب صحنا خارجة رضي الله عنها mi ngi yor ndab loo xamante ne am na lu ci nekk fii sharabun aw ta'am ñama ngi ci wal maanaam wala boog ñu naan fa iza hiya qad fa iza hiya ja'at su mu ne kon nag fa bashirha moo fu dëd faqra'ha na nga ko na nga jàng ci moom minallahi ci yàlla wa minni ak man assalaam nuyoo waxal ne ko yàllaa koy nuyoo waaye man jibril man jibril assalaam maa ngi koy nuyoo loolu la ko waxoon ba pare daan wa bashirha bi baytin fil janna mhm. na nga ko béggalee néeg bu nekk àjjana boo xamante ne min xasab ci wurus lay doon maanaam o jamaa lay doon boo xamante ne amul laysa fiha nas xasabun wala nas amul coow amul coow mooy liñ doon wax léegi rek al jazaa'u min jinsil amal lay pay day as day day day day askanonte ak li nga xamante ne moom mooy jëf voilà soxna Xadija radiyallahu anha noonu mu nekkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam toppatoo maanaam ba pare mu nekk moom ci kër gi te sonulu ko ci ñu jëndal ñu jën ñu fayee ko ko lan kërug àjjana boo xamante ne kër googu kërug jamaa lay doon mooy yii nit ñi di gën di xool ne lii dafa dafay valeur ñu jox ko valeur boobu amul woon coow parce que maanaam foofu du am du am coow parce que moom euh, bi mu nekkee ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam benn coow au contraire fu yenente bi sallallahu amee lu ko bu ñëwee moom moo koy dalal nasab coono amu ci woon foofu tamit coono du fa am ngir ne moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam benn coono mhm. maanaam mooy ak jaza amul islam kon loolu moom mooy li nga xam ne moom la ko mais li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko moom mooy le fait que mu tawaaf mu et bi ñu paree ci loolu dégg nga maanaam comme umra lii rek la bu doon am na leneen lu ñuy def ci umra bi kon Seydina Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu ko limaa rek kon nga xam ne fii kon xadis bi imam al-Bukhari dina ko indi xadis numéro 3819 imam Muslim dina ko xadis numéro 2433 imam Ahmad dina ko xadis numéro 19128 19143 19145 ak 19406 من قال بالإسناد المتصل في الكتاب الذي حدثنا الحميدي بن عبد الله بن الزبير وقال حدثنا سفيان مهم Uyayna an Amr ibn Dinar mooy al-Makki annahu qaala sa'alnaa laaj nañ ibn Umar sayyidinaa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhumaa an ci mbiru góor goo ne taafa dafa tawaaf bil ci Kaaba gi fii umratin ci umra walam yatuf te tawaaful maanaam baagantewul bayna Marwa ak Marwa ndax dana dikkee imraata boo soxnaam fa qaala mu ne qadima na annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa taafa mu daal ci eh, Kaaba gi. neeg bi sabaan juróom ñaareel wa salla julli khalfal maqam ci ginnaw maqam ibrahim rakatay ni ñaar rakka rakatay ni ñaar rakka wa tafu mu daal daw manam fi dafa tëb la mhm. nan Zamzam waaye waye nak ginnaw wa tafu mu daw bayna safa manam mu bagante bayna safa diggante safa wal marwat ak marwat saban juróom ñaari yoon waqatte deug dëgg kaana na mustadin te du deñ di nekk la kum ñeel len fi rasulullah ci ndawal yalla sallallahu alayhi wa sallam uswatun roykaay mm-hmm. roy leen yeneen sallallahu alayhi wa maanaam dafa am mbir yoo xamante ne jarul laaj bu laaj am na solo ci pour xam mais laaj boo loo xamante ne jarta laaj maanaam mbir mi nii la ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam defee defal loolu bañ indi complication bul yokk bul wàññi dégg nga euh, qaala nee na wasaal naa ñu laaj jaabir sayyidina jaabir radiyallahu anhuma jaabir ibn abdullah radiyallahu anhuma fa qaala mu ne laa yaqrabannaha bu ko jege xat bu mu ko jege de xatta yaquufa mbete mu daa di daw baagante bayna safa diggante safa marwa ak marwa maanaam su paree nag mun mun naa def lu ko neex maanaam mais liy gën a symboliser mbir mi mooy watu bi moo tax wala wàññi karaw bi moo tax ñu Shafi'i rahmatullah ñoom dañ ko def rukk dañ ko def ponk ñeneen ñi nag defuñu ko ponk liñ ko def rek moom mooy lu war maanaam waajib yow dafa bokk ci war waaye boolewuñ ko ci menace waaye ci bu dee euh, kii maanaam ngir ne ñeneen ñi dañoo jàpp lool loolu day symboliser le pare nga rek alors que ñii muy Shafi'i rahmatullah ñoom dañ ko boole ci manasikul hajj ci ponk yi loolu wala manasikul umra ci ponk yi loolu moom mooy euh, différence bi euh, hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi woon hadith 395 1623 1627 1645 1647 mille sept cent soixante sept fii moom mooy fi mu ko mujjee indi kon jeex na xadis bi tamit dootuñu ko indiwaat incha allah taala na ko xadis numéro mille deux cent trente quatre ak mille deux cent soixante et un imam abu na ko numéro deux mille neuf cent trente deux mille neuf cent quarante et deux mille neuf cent soixante deux mille neuf cent soixante six imam ibn maaja indi na ko xadis numéro deux mille neuf cent cinquante neuf imam ahmad indi na ko lu bëri kon xadis bi waa قال بلسنا المتصف الكتاب لي حدثنا محمد بن بشار موي بندار قال حدثنا غندر موي محمد بن جعفر الهذلي من قال حدثنا شعبة موي بن حجاج من عن قيس بن آه، مسلم موي الجدلي العدو العدواني أبو عمرو رحمه الله تعالى الكوفي جنار نصام بنت ما أنا جنار كذا أنت سلاسة بوكس سيزم جنرال آه، عن طارق بن شهاب موي ابن عبد الشمس Eh, Abu Abdullah al-Bajali di wa Kufa mom tamit mom sahaba la radiyallahu anhu kom ni nga xamne ne loolu lañ ko gisoon génn na 92 ans ginnaaw gada Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu Abdullah ibn Qais sahaba Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi eh, wa sallama radiyallahu anhu qala nee na qadimtu dama ñew ala nabi ci Yonent sallallahu alayhi wa sallam bil Batha ca Batha manam hmm. Makka wo huwa mu fek mom munihun ngi goral maanaam gooral gëlëm gi fa qaala mu ne ahajjata ndax aj nga qultu ma ko naam waaw qaala mu ne ko bi ma maanaam mooy ndax bi ngay ñëw nii di ma fekk si da ngaa bokk ci ñuy aj wala ci ñi nar a aj mu ne ko waaw nee na qaala ne ko bi ma ahlalta ci lan nga armal qultu nee na ma ne ko labbayka damaa wax damaa wax yàlla labbayka wuyu naa la bi ihlaali ci armal gi may armal ka ihlaali nabi kéem armal genente bi mm. sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne maanaam duñ jiitu yenente bi sallallahu alayhi wasallam def lenn lu jege lu wuuteeg moom sallallahu alayhi wasallam moom radiyallahu anhu maanaam noonu lañ melo qaala nee na eh, yenente bi sallallahu ne ko ahsanta rafet rafetal nga tuf na nga tawaaf bil bayti ci néeg bi wa bis safa te nga baagante diggante daw diggante safa wal marwa ak marwa nga si nee na fa tuftu ma daal di tawaaf bil bayti ngir lan indiwul hadiyu nee na fa tuftu ma daal di tawaaf bil bayti ci kaaba gi wa safa daw diggante safa wal marwa ak marwa su ma topp ataytu ma daal di dikkee mu atan jigéen min xaysin ci waa banu xays maanaam ci xays maanaam nga xam ne doom baayam la maanaam fa falat rasi mu daal di wat bi su ma topp ahlaltu ma daal di ah, ah ma daal di eh, ahlaltu ma daal armal bil xaj ci at fa kuntu ma nekk ufti doon ubbee bi ci moom xataa kaana ba mbete mu nekk fii xilaafati Omar ci xilaafa Seydina Omar radiyallahu anhu fa qaala moom mu ne in axadnaa buñ jàppee bi kitaabillahi ci téere yàlla bi fa innahu nag moom ya'muruna daf ñuy digal bi tamaami ci ñu mottali en fait moom ifraat moom la jàpp ne moo gën ifraat voilà moom daa jàpp ne ifraad moo gën moo wa in axadna te bu ñu jàppee bi qawli nabi ci wax yeneen sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu moo tax euh, fuqahaa maaliki rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne lu yéeme la comme Seydina Umar radiyallahu anhu këni maam ñoom ak Shaafi'i rahmatullah këni yeneen bi sallallahu wa sallam ifraad na def maam te zaahiru mbir yëpp la tamattu la def xiraat boog laa bëgg a wax euh, hmm? دغ مولا وين خدنا بو نيو جابي بقول النبي جو يرانت بي صلى الله عليه وسلم فانه لك مم لم يحل مم سميكول مام لولو مم موتاخ بو جاب ني تما فول كي ا فراد لا هلا ولكن يرانت بي مم لم يحل سميكول حتى متى يبلغ مو يغ الحدي حدي محله برب بي خنا فوف لنكو ورا مانا رندي مانا لتخ امام البخاري البخاري رحمه الله تعالى لتخ حديث بي maanaam mooy Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu bi mu moom biñ ne ko tawaafal boo ginnaaw ga lool suma axel la ginnaaw nga simmeeku maanaam mu xam ne kon loolu boo ko defee rek ngay mën a simmeeku ci umra xadis mm-hmm. ah, bi imam Bukhari indi woon na ko xadis numéro mille cinq cent cinquante-neuf mille cinq cent soixante-cinq mille sept cent vingt-quatre dina ko indiwaat quatre mille xadis numéro quatre mille trois cent quarante-six ak quatre mille trois cent quatre vingt imam muslim na ko xadis numéro mille deux cent vingt et un ñaari xadis numéro deux mille cent cent quarante-deux imam ahmad na xadis numéro deux cent soixante-treize euh, dix-neuf mille cinq cent cinq dix-neuf cent trente-quatre dix-neuf mille cent quarante-huit ak dix six cent soixante onze kon gis na xadis bi waa sahaabu kutubu sitta ñett ko ci indi ñett doon ci imam Bukhari imam euh, Abu Dawud imam euh, imam bukhari imam Muslim ak imam an kon أبو داود dawud moom tirmisi ak imam ibn maaja ñoom ñëpp من قال بالاسناد المتصل في الكتاب لي حدثنا احمد بن عيسى وابن حسن المصري رحمه الله ابو عبد الله العسكري رحمه التشتري رحمه الله الله ابن التشتري نون لا سيوي مو بوك في الجرا عشان بيجي على 243 فانا غيناو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن عبد الله من هو المصري من قال آه، أخبرنا عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري آه، أبو أمية الأنصاري رحمه الله تعالى جروم نياريلو جنراشن بي بوكون تجروم نياريلو جنراشن رحمه الله تعالى عن أبي الأسود Eh, mooy Muhammad ibn Abdurrahman hmm? Muhammad ibn hmm? ah. yatiim Urwa. ah yatiim Urwa naam waaw voilà mooy yatiim Urwa naam rahimahullah ta'ala bokk juróom-benn génération bi anna Abdallahi muy mawla Asma Abdallahi muy ibn Kaysan al-Qurashi at-Taymi rahimahullahu ta'ala Abu Umar al-Qurashi nekkoon waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam bokkoon ci ñetteelu génération moom tamit mawla Asma bint Abu Bakr radiyallahu anha moom mawla la moom ci Asma bint Abu Bakr radiyallahu anha haddathahu moo ko xabaar annahu kaana nekk nekkoon na yasma'u doon dégg Asma muy bint Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhuma ummu Abdullahi bi zaatu nitaqayni radiyallahu ta'ala anha génn àdduna 73 jàpp 74e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ay weer ginnaaw doom ji sayyidina Abdullah ibn Zubayr ibn Awf radiyallahu anhu mu ne taqulu mu kullama saa yoo xamante ne marrat romb na bil xajul alxajul salla sallallahu day eh, eh, maanaam day Muhammad sayyidina Muhammad saa yu daan romb alxajul rek danaan ñaan yàlla na yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam laqad dëgg-dëgg maa woo ànd ak mu wa nahnu te ñun kat yawma izin bis booba xif bis booba xifaafun ñu woyof lañ maanaam ñu néew lañ amuñu doole qalilun ak néew itam zahruna suñu yan maanaam li nga xam ne moom lañ daan yóbbu suñu waruwaay yi tamit amuñu woon doole dara qalilatun ak néewoon tamit azwaduna suñu yóbbal yi nee na faata martu waaye nag ma daal di umra ana man wa ak uxti ak sama Eh, doom maanaam sama sama doom baay Aysatu ummul mu'minin radiyallahu anha wa Zubair ak Seydina Zubair ibn Awam radiyallahu anhu mooy boroom wa fulaan ak diw wa fulaan ak diw waaye fa lamaas ba nga xamante ne masax na laal nañ albayta néeg bi maanaam mooy biñu demee ba nga xamante laal kaaba bi mooy ruknu yi mooy def tawaaf ahlal maanaam li mu ciy teg li ci teg maanaam gisoon nañ xaalis bi mooy li mu mooy après ginnaaw gi mu dem ci julli yi ñeer rakka ginnaaw naan zam-zam dem def safa ak marwa ah, ahlal naa ñu daal di simeeku su ma topp nag ahlal naa ñu daal di ci suba gi bil hajji ci ngoon gi waaw ca ngoon ga bil hajji ci maanaam dañoo ñëw ñoom kon dañoo umra ci ngoon gi ñu dem ak mooy bisu yow mooy yow mu tarwiya voilà euh, hadis bi imam al Bukhari rahimahullah ta maanaam euh, ci riwaaya sayyidatna Asma radiyallahu anha fii la ko indi maanaam indi woon nañ ko gisoon nañ waaye waaye sayyidatna Asma radiyallahu anha moom fii rek la ko indi imam Muslim tamit hadis numéro 1237 la ko indi hadis bu ashaabu kutubu sitta ñoom ñaar rek ñoo ko ci indi ñoom ñi nga xam ne ñoom ne boroom saxe rahmatullahi alayhi عليهم آه، عليهما وعلى الجميع والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب